xam-xam li koy dundal mooy boroom xam-xam bu ragal yàlla waaye tamit di jëfe xam-xam jërë ngeen jëf mbokki internet Allô senegal jëmm ji ñu leen indil dootuñ leen ko présenté ndax du benn du ñaar génn na wax sénégalais teg ci seen bët du benn du ñaar faj na fi nit senegal sénégalais teg ci seen bët waaye du benn du ñaar sénégalais yi gis ni dëgg-dëgg asraar am na jaarale ko ci jëmmam ji ndax Jamil mi nga xamante mooy suñu sëriñ bi tey di suñu sëriñ sëriñ Jamil lañ koy wax ndax def na ci réew mi loo xamante ni dama naan ñu baree baree baree bari buñ gëmee ni asraar am na wala buñ gëmee ni sëriñ yi génn internet ci Allô Sénégal yàlla may na leen lool jëmmam ji def na ci lu baree baree bari tax nag tey ñu seet ko ci barabam seet ko ci makkaanam seet ko ci daaram fekk ko muy liggéey liggéey nag day am pause pause boobu nag la ñu jaarale publicité rek ñëw ngir waxtaan ak moom dinañ leen wax sax li mu doon liggéey ndax li mu doon liggéey mënees na cee waxtaan ak moom jot na nag ay réclamation yu baree baree bari waaye sëriñ bi dinañ waxtaan ak moom ci actualité ndax Ousmane Sonko fanaan na benn ñaari guddi ci kaso ñetteeli guddi bi Ousmane Sonko ne dafay grève de la faim lu wundu loolu ak fu mu nar a mujj bés bi ñu jàpp Ousmane Sonko nekk ajjuma tombeek lendemain tam xarit sëñ bi nee na ma déet du hasard li tax ñu bàyyi ba gannaaw baar bi digganteem ak tàkkusaan ñu jàpp ko yóbbu du hasard itam waaye avocat yi Ousmane Sonko génn nañ mel na ni ñoom it duñu bàyyi benn duñu bàyyi weer ci benn fan loolu lépp dinañ ci waxtaan ak sëriñ Jamil bi nga xamante ni moom suñu ganu tey bi balaa boobu dañ koy bàyyi moom suñu sëriñ bi mu nuyu mbokki internet yi nga xam ne ñoo koy seetaan sëriñ bi bismillah jërëjëf aouzu billahi mina rabbil alamin alxaaili fi maxkimi tansilihi wa nasri min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatu lil muminin wala yasidi salimin ila xasaara ñoo ngi nii ñëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu yomb ci réew di ñaan suñu borom subhanahu wa taala def ci réew mi jàmm di jéggul baax ci eh, seen xaar bi ngeen fi xaar maa ngi tudd baax wala nekk ci ay yitte rek di am mbégte baax di ànd ak yéen saa su ne waxtu ne ci jotaay yi am solo yi mm-hmm. jërëjëf jërëjëf sëriñ bi waxtaan bi dañu koy door ndax ñoom comme ni nga ko ñu waxee ni comme ni nga ñu ko waxee rek xaar bi yàgg na waaye temps bi itam mën naa ni faw ñu profité ndax bëriwul sëñ bi dafa am loo xamante ni sa mënin la seq nañ jotaay yu bëri fa faw laay faral di tàmbalee ndax danga nga cee mëne lool muy wàllum seet ne nga moom mooy buntuk ñaan yàlla te mooy bunt bi nga xam ni yow fa nga xam ni fa ngay jaar pour mën a ñaanal nit ki aajo bu mu mënti am. yàlla dama nattoo ñaar yi dafa dajee ci man euh, mooy ku aajo mu faju duma ma woo ba pare ku aajo mu faju dana ma woo te ku ma woo sa aajo faju loolu yàlla dogal loolu dama kaa teg fu leer moo tax ma di ko wax mm-hmm. euh, li ma li may sañ leer te sañ wax nit ñi di dégg ko mooy man du ma jëflante nit seetuma ko mm-hmm. ndax suñu borom dafa wax ci alxuraan wa aatul buyuuta min abwaabihaa yaakaar naa nga dégg ñu ba di ko tudd waaye daa doon lu wér tax ndax lépp loo gis dafa am fooy jaar buntum ñaan nag day seet mm-hmm. man nag yàlla ma dimbalee nit ki bu ma xamee turam xam tur waajur jëm xam ay atam lu ma ko ci mun tox nag daa amut te loolu yaakaar naa xam nga ci dara te ku yàlla bind kuy noy mën naa la wax loo xam da yow ku la xam moo wax sa mbir ak foo mën a nekk ku la mën a jur rek nu mu tudd ak at yoo toll bu mën a da nga da nga ci ci li ma lay wax te dara gën ci alxaan dina toll ci kanam na dootuma seetati ndax jot gi laa amut ndax wallahi naa ndax ceet moom nekkul loo xam lu ma jàng la lu ma gës la lu ma dond la dama ci am cër boo xam ne ku yàlla bind kuy noyyi lu ma la ci mu dox da amut baraana sëriñ soo xam sax dañ leen seetluwaat dañ leen seetluwaat mën nañ seetluwaat ma leen koy wax ñu koy wax kooku kooku jàpp ne ñoom taman la loolu fu leer laa ko gis nga mbirum ceeb moom du ma ne maa fi dàq waaye gisuma ko ma ko dàq moom wala <laughs> yàlla dogal du ma ma siyaar du ma ñaanal nit seetu ma ko nag mm-hmm. Mm-hmm. waaye sëñ bi ah, réew mi polémique gi bëri na ci sa ci sa kànnaar gi ndax ku nekk a ngi naan kànnaar kànnaar waaye ku génn yor ñaari kànnaar kànnaar yi bu gën a efficace sa morom nga di ma kii ci liggéey boo xamante ni jàpp ni dëj ko ko ba bu dee njaboot sax nga dëj leen tii leen jaaral ko ci kànnaar moo tax sa kànnaar gi sëñ bi boobu ba léegi réew mi ngi koy coow. waaw Lamine gis nga kànnaar bi ma yor mi ngi nii yaakaar naa wax naa ba tey daan na li ma ciy def. waaw ku mu mën a doon ci àddina. bu ma ko ci defee ñu toppante waxuma laa ni tamit maanaam lii nii xam ñaari way dencante moo ko tax a jóg maanaam diggante ñoo xam ne dañuy sëy ndax du ko defal ñaar ñoom xam naa daaj bi ci nekk ndax ku ma ko defal daañu toppante te bu fekkee defal naa ñoo xam tëkkantiwul lu ëllëg lu ci mën am rek maay maay saw dañoo ci man mm-hmm. kon lépp lu ma na ne yaa ngi may dégg moo xam nga nekk Italie France Amérique Espagne Angleterre sax maanaam nga am jafe am jafe sa jëkkër mm-hmm. nga dem ñaan lu ci fu ne nag te gisoo ko ñëwal ci man la ma cee def dama koy def ci daar daar mu gis ko maa ngi léegi ñëw ci yàlla gis nga lii bu ma ko defoon ñaari xaj ñu toppante waxuma laa nit ak nit bu ma ko defoon ñaari mbaam ñu toppante waxuma laa nit ak nit ñaari fas ñu toppante waxuma laa nit ak nit ndax mu tax daa doon loo xam ne ku yàlla bind kuy noyyi maanaam jëmbaliwuma la ko li ma la ci leer na da nga damay dégg ñu wéy naan damaa dem ci sëriñ nangam mu ñaanal ma gisuma ko nangam nangam gis nga sëriñ ci boo ñëpp bokku jam bala yàlla nattoo nga ñë ci sama jëmm ji da nga fàttali la ñuy def wallaay laa si képp koo xam ne yaa ngi may dégg nga am jafe-jafe sa diggante ak sa borom ko ñëw ci man yow ma ci loolu nag gis nga képp wax na nga nekk tubaab moo xam ngay bëggante tubaab wala nga wala nga nga takk tubaab mu lay font wala liggéey ab tubaab su mu lay gis nga baraan na ñoo xam ne seen liggéey yàqu woon na ci diggante nit ko xonk mën maa ko defaraat mhm. te la ma cay def ab diir bu gaaw lay doon danga may woo ñu waxtaan wu jiw sa aay képp koo xam ne yaa ngi may dégg ak foo mën a nekk nag bul naan dañ diw dama def nangam ñëwal ci ba issin ba pare loolu fa mën <laughs> bi dama daan dégg ñu naan jat dafa gaaw dafa efficace dafa dafa dëgër waaye fi ma ko gëmee fii la ndax fas gi nga xamante ni yaa ngi koy liggéey ci wàllu nopp jat say jat jaarale ko fu leer fas mu dëgër këcc dëgg diggante bi mel ni mu soow fii nag laa gëmee ni jat lu am la si jat gi mii sax bu ma jotoon nii nii wax yow nii waaw du ma la waxoon sama kër gii ba addunay tukki def sañu jug di la ko xoy taxul nga dem ndax li ma def Lamine gis nga lii ma yoon ni ak fas la genn góor ma ko joxoon du wax tur yi nag nit yàlla la dafa am lu ma ko liggéeyoon ndeysaan xolum sedd ci man amul lu ma jox mais dinaa la jox loo xam ne jamono ngi ñëw maanaam da ci da ci da nga ci dimbali doomu aadama te moo nekk lii lii li muy tut tut tut defar na kër defar na dëkk defar na mbooloo defar na tamit maanaam fayu bu dëngu woon yëmul ci loolu dong maa ngi léegi ñëw ci yàlla képp koo xam ne da ngaa nekk ci barab di fa liggéey ñu lay bu taxatal ñëwal ci man wala nga nekk ci barab bu ñu faa jukk ñëwal ci man la ma ciy def juróom-ñaari fas dong la lu yomb la ak gat la lu muy gàtt gàtt gàtt wallahi naa ci dara gis nga képp koo xam tamit da ngaa nekk ak sa jabar tamit wala nga nekk ak tamit sa jëkkër ñëwal ci man képp koo xam ne même même même da da ngay nekk nekk da ngay liggéey ab tubaab ñëwal ci man gis nga lii dafa doon loo xam ne moom amul suba amul tey amul ngoon da ngay dañuy waxtaan léegi ma def ko léegi sa aaju faju maanaam daa doon loo xam ne maanaam képp koo xam ne dangaa ñaanloo ñaanloo ñaanloo son ci mbirum noob ak mbirum ni mu mbirum boole ñëwal ma dimbali la te yàlla tax maa ngi giñ ci yàlla ne ku am jafe-jafe woo isee ma pare man li ma bëgg mooy bëgguma ni daan diw daan sëñ diw jox nax na ma sëñ diw defal na ma nax na na ñëw isee ma pare rek ndax bu ñëwee ci man dinaa ko fàtte loolu ñooñaa wallaay da nga sim laa gis nga xam-xam dafa am te daa am xam ne maanaam ku yàlla ku yàlla ku yàlla defal tawfeex man ndax nit mën na ma seetaan nii rek gis may wax mu am man mën na maa mën naa gëm sax li muy wax waaye yàlla moo du moo du ko defal tawfeex mu ñëw ci man waaye na la yàlla dimbali ba nga woo ma na la yàlla dimbali ba sa aaju nekk ci man na la yàlla dimbali ba ma ba ma ñaanal la maa ngi giñ ci yàlla ba addunay tukki hmm. dootoo amatu loo jàmbat man ajo benn yoon laa ki dégg du ñaar wallaay naa si aajo bi nit ñëw ci wax ma ko bokkut ak aajo bi mu fi indiwaatul xanaa beneen waaye bokkut ak mu fi ñëkkoon hmm. ko bu yàgg jërëjëf gàllaaj gi ci biir bureau yi sëriñ bi la dama naan sax gàllaaj guy dugg pale sëñ bi moom la yor ndax jaaro yi mu yor ku dul kilifa du ko takk wala sax ku ko takk nekk kilifa fa nga ne jaaro yi fu ne yabal nga ko ci réew mi ku ne takk na ko muy ministre muy maire muy député grade bu ne nit doon na ko gannaaw sa jaaro bi sëñ bi te jaaro bi nag wax dëgg yàlla dama bëgg Sénégal gépp jariñu ci looloo tax mënuñoo def émission ba dem te duma ko tudd waa jaaro bi moom maanaam dégg ko dem taxul nga am ko bëgg ko am nga am ko yor xaalis nga am ko bëgg ma ñaan taxul tamit ko wallaay naa sim jaaro bi tawféex nga am ak ndimbalu yàlla ngir am ngir am ko ndax man sama lépp tënkuma ko ci nit yor xaalis ma am ko man doxewuma ci loolu ndax yàlla nattoo ma mbirum àdduna moom dama ciy sant yàlla waaye nag baatu am maamaa yenn fax ma feem ko fi ci lay doxee doomu aadama yi yàlla wax ci képp ku amal nit njëriñ ma bàyyi la ci kaw suuf bëgg a dund bëgg a yàgg ci kaw suuf moo tax may dimbali doomu aadama yi gis nga jaaro bi ma takk moo nekk nii lépp lu may defal doomu aadama sama bopp mm-hmm. ndax sama bopp laa moom a ñëpp ndax moom laa gën sama bopp bii sama jëmm ji mm-hmm. koo gis rek sama jëm ji moo ma gënal ndax doo gis ma doo gis mooy jaar bi ma takk nii moo moo nekk moo nekk nii tamit ku yàlla dogal nga takk ba adduna tukki nit mun laa njabar mhm. doo dee ci accident doo dee ci lakk benn tamit boo ko takk tamit maanaam looy xëccoo da nga ci jot ki ko takk du ñam eh. loolu da yàlla yàlla eh. la li am ci njariñ ëpp na ñaar fukki junni ak ak ëpp na téeméer junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni mhm. fu leer laa ko jaar bi ku ko takk booy tukki booy ñëw da nga indaale xewal ko takk foo mën a dem da nga dellusi damay faral di wax nag balaa na ko wax day tukki bi ñëw ab néew lay doon sababu dafa mënta ñàkk wa na min kulli shay'in sababan yàllaa ko wax ci alxuraan sababu nag mooy ngeen wut li nga xam ne moo lay jëmale si kanam ak li nga xam ne boo ko defee suñu boo dana la dimbali nga def mooy jaaru bi jaaru bi nag dafa doon loo xam ne maanaam maanaam képp ku ko takk ci famille sax jëmmi famille boobee mhm. maanaam yafe yafe yafe kii ndax dafa doon loo xam ne xam-xam la te damaa am fu ma ko leer fu ma ko teg mhm. te nag képp ku ma ko jox ak ki ma ko joxoon mun ñoo yem te jaar bi ku ma koy jox tamit jaar boobu ba mu fekk nga tax da nga koy tekki ndax daa doon loo xam ne maanaam maa ngi giñ ci yàlla ne képp ku ko gis ak képp ku ko dégg ak képp koo xam ne bëgg nga am taxul nga am ko ñaanal yàlla am ndimbal gi jot ma téléphone ñu waxtaan ba leer ma leer na war nga am na am ko waaye ku yàlla nattu nga am ko sa aju faju na jërëjëf ah, bi nag dañuy ñëw ci cëppaandaw li ndax dañ la fekk nga teg xaal di ci liggéey lu ah, sax tàmbali woon nga ko waaye moom lay mujjee ci xaal bi ndax euh, dañ ma signalé ni néew kàttan yaa ngi koy jëlee ci réew mi ndànk-ndànk dama ko waroon a jiital ndax néew kàttan bi sëñ bi li nga ko ni ni nga ko ni ko dominé jamono ji ci réew mi dafa mel ni yow lañ ci def capitaine. wala wax ba kàttan jamono jii dama gisu koo xam ne yaa ma ci yaa ko li ma liggéey bi ma ci liggéey gisuma ko ku ma ku ma kii maanaam ku ma ko dàq. moo tax man la yaa ngi koy jeexal ci réew mi de. képp ko ma ko jox boo ko naan ak cant nga ci wër. gis nga butéel bii nga gis alxuraan waaye yasidukum xuwwatan ilaa xuwwatikum lañ ko liggéey ay alxuraan ne na yéen yu ko boole du a leeral waaye nag ku yàlla dogal maanaam la mooy koo xam dafa néew kattan wala koo xam awraam dafa dellu wala koo xam day sëy di gaaw a daanu na la yàlla di nattoo nga ñëw ci man wala ko xam tamit yow sa jëmi bopp tamit maanaam sa man yu sax dafa maanaam dafa am ñoom seen man yu dafa feewul am ñoom seen man man yu tamit maanaam tuuti lay génne man yu dafa xel lu yàgg te ñu bëri xamuñu ko te damay faal wax ne bu njëkk Euh, góor dëgg bu mosaan tuur ndox da gis day def am pax mm-hmm. waaye léegi nag gi nga nit bu ba bu jamono ñu toll ba bu ñu turee ndox damay ndox moo wis rek li war lan moo waral mm-hmm. ko ñàkk am ci garab yi la gis nga garab koo na ndox moo xam ne boo koy naan ko roose mi màgg loolu dong la mm-hmm. loo tax nit ñi naan yokk awra beneen bi toog ne boo koy naan mën nga di sëy lu yàgg te doo gaaw a daanoo beneen bi toog koy naan day yokk sama niw te mu xamul sama niw daal lu mu fekk sa yaram ak sa biir ak loo xam da nga kaa lekk bu tooy res da koy dindi wallahi naa sim te amul benn saw avenir garab gi képp koo xam naan ko te ba adduna tukki ba adduna tukki na laa bi tabi jee bu la neex mën ka may jëlaat déggoo ne koo jël ba mu jeex ba adduna tukki la neex mën kaa jëlaat bi tabi bi nag bu ne gis mu tourne rek waaye na nekkul yomb Amérique Italie Espagne Angleterre Allemagne France juróom benn yi am na ñoo xam ne ñu faa nekk spécial ma leen ko jox ñu koy joxewaat léegi dama koy jox sax dama ko fay jox diir bu gàtt mi woon ma jeex na même médecin dama leen jox lii dama cee naagu balaa na sëriñ soo xam ne dañ leen jàmbat ñu mën lañu ñëw ma jox leen kar ñu joxewaat ko ñooñu den tagg taman la dama koy wax ndax xam-xam dafa yaatu in tansurullah yansurukum yàllaa ko wax hmm. képp ku dimbali nit ñi ma dimbali la man nag a dimbali a am dimbali maa ngi giñ ci yàlla nag xam maanaam sëriwut daa làqu rek hmm. waaw te am loo xam ne eh, ñu bëri dañ ko xamut te affaire yi ay code la ko ci nag rek doo xam ne xam li nga bëgg dafa am lu may leeral nag mooy jëmmi sama garab yi daa doon loo xam ne képp koo xam ne jëfandikoo ko fi nga kan naa ne fi nga yëre résultat amul tey amul suba loolu yàlla moo ko dogal mm-hmm. jërëjëf loolooy jooni jooni fajum jooni jooni fajum teew mi teew loolu la sénégalais xam ndax sénégalais dafa gaaw a weddi ñàkk ak gëm waaye nag ñu jëflanteeg jëm ji <laughs> bañ demee dañoo indi ñeneen waxuma ak sax gëm waaye dañoo sax jommi sëñ bi xaal bi sénégalais yi nag ba dañoo dañ kumpa te kumpa la nag ci ñoom man nag du guléet ndax yàgg naa la cee fekk nga ci liggéey du liggéey yu yéeme sénégalais yi laajte xaal bi loo ci mu ngi nii maa ko maa ko maa ko maa def heureusement sax ndor mënu ko génn yéen fekkoon ma am loon def mm-hmm. maanaam li toj liggéey moo ko tax a am na kilifa gu mag goo xam ne ci jamono yii tam mi ngi fi toj liggéey du ma toj tudd turam maanaam gaa yàgg waaye yàlla dogal maa moom jëflante nañ ci liggéey bu xam ne ca la nekkoon moom may ma tuuti rek gis nga lii ma yor nii ko tax moo ko tax a jóg na lu ñu ci bind mi ngi nii xëy na boo na ko sumee dinaa nekk leeral mi ngi nii waaye nag ku yàlla dogal mm-hmm. maanaam jëmmi xaal bii am na loo xam sax lépp matut ndax da ngeen fekkoon may def heureusement ngeen fekk ma mën naa ko tegaale ngeen gisaale ko mm-hmm. waaye nag bu ma ci pare ba def te ci bu ma ko tojee liggéey boobu toj na moom ak liggéey bu lu mun mënti doon même liggéey boobu ko liggéey bi ñu ko def ña ko ci def ña ña ko def ay millions lañ ci financé gis nga jamono dafa toll fa xam ne jamonoy kaaraange gis nga nit bu jugul ci boppam nit la te àdduna nit wuutu toog tëdd di nelaw di lekk di naan di nelaw xolam di sedd mu jàpp muy am jàmm déedéet mm-hmm. waxtu wu nekk waxtu yoo gën a a gën a jug sa bopp ndax am na ñoo xam ne tëdd gi nelaw ngi tëdd ak jàmm gi nga am ni enregistré wu leen te neexu leen te daan jug ngir yàqal la ngir yàq say mbir bu ko defee nag nga naan man kenn wur maa liggéey ndax aw may noonu ci boppam waxtu wu nekk te suñu borom képp ku jug ci boppam toog noonu rek day sa bopp nag fekk la caa ndimbalam kon nag sababu dafa mënut a saaban yàllaa ko ci axaan topp leen sabab yi mm. waaye doomu aadama yi koo ci wax naan man gëmuma sëriñ sëriñ ñëpp déedéet sëriñ si ñëpp yemuñu ndax sama baaraam ni nga rek yëpp bokkuñu yem am na yu sutante am na bu ci gën a gudd am na bu ci gën a gàtt yàlla nag noonu tënki àdduna am na ñoo xam seen xel dafa gàtt am ñoo xam seen xel dafa gudd am ñoo xam dañoo gàtt am am ñoo xam ñëpp bokkuñu na la bul jàpp ne ñëpp yem dinaa ci ñëw si sëriñ si eh, ma wax loolu mooy léeg-léeg nit na ma laa sëñ diw def na ma laa dama ñëw sëriñ si dama ñëw ci client yi sëriñ ci dafa am ñoo xam ne jubuñu loolu yàlla yàlla ko dogal waaye àdduna loo gis ci lu baax rek lu bonang ci biir ndax it loolu mënuñu ci dara fi lañ ko fekk te fi koy baax lañ ca man mooy képp koo yaa ngi jug gi def lu bon na la leer ne bisa ngi ñëw da nga ko rëccu indi na yaakuluna amwaala yataama innama yaakuluna fi butuunihim naara wa sayasluuna sa'iiran dafa am loo xam ne dama koy leeral maanaam gis nga alal nit képp ku ko lekk ci teey ba ci teey ci teey bakkan maanaam bis ni bala ngaa dee sa biir bi dana maanaam dana toll noo xam ne yow da nga bëgg a maa ngi gën ci yàlla ne na asim képp ko xam ne yaa ngi lekk alal nit ci ñenn nii rek bis nañoo da ko rëccu ndax yàlla wax na ko ci alxuraan maanaam dafa am loo xam ne eh, lekk ko ci nii nii rek man loolu ma ñëwuma ko la sin yàquna riba laa yàqumu illa kama yàqum loolu dafa doon loo xam ne maanaam maanaam nit ki waxtu wu nekk rek bu koy def xelam di dara rek man kooku man kooku dama tiit ci moom ndax it bu fekkee da ngay jëflante doomu aadama da ngeen waxante sart yi da war a def boo ko mun ne ko ko loolu day tax sa kooku dana gën a respecté ci loolu waaye lekk àll jàmm ci loo xam ne ci ak neen la loolu loolu man ñëwuma ko bokk te képp koo xam ne yaa ngi may dégg yaa ngi fekk yaa ngi koy def wattandi ko ndax li mu leen dara jural ëllëg xalaa kulli alin da nga te beneen bi topp nga ko rëccu même client yi am na ñoo xam tamit ñoom ñoom tamit may wax li may wax li may wax tamit am ñoo xam ne am ñoom dañuy xas te tamit ñoom ñoom ñoom da koy am am ñoom dañ woo duñu la doyee dara am ñoom dañ woo sa saaga la yóbbu yëpp fi am am ñoo xam tamit dañ dañuy nekk euh, nga leen ñaanal jël jël jël sa temps ñu jàpp nag leen bëgg tey jëkki dal commencé dal da la man damay gis damay gis ñoo xam ne ci sëriñ si yooyu comme ni may kilan yi kalaame yi loolu may sëriñ si kalaame di wax bëgg naa nga may leeral lii ndax ñu tam dañuy dal te wax na dëgg léegi nag jëmmi client yi dañoo war a ànd ak tee di dal képp ku ñu dugg tam ñoom ñu xam ko képp ku ñu jëflante ñu xam ko ndax àdduna bu gis nit di wax rek maanaam nga jàpp ne mooy waaja dama ne adduna bu gis nit ku baax nga jàpp ne mooy waaja ndax dafa am loo xam ne tamit maanaam waxtu ne dama koy leeral maanaam man moom damay ñaan yàlla waxtu sax ma julleen ki aajum dota faju yàlla bu ma woo te ku aaji ku ku sa aaji dara faju yàlla ma woo te ma woo sa aaji faju li nga xam ne moom laa leeral mooy gis naa benn sëñ boo xam ne daanaka seen bi dañ ko lu bari mm-hmm. yaakaar naa ilaas baraxam nañu ko wax mm-hmm. eh, sëñ boobu eh, tubarkàlla ndax damay dégg ñu bari ñoo xam ne ñu ngi koy tagg man sama wax sama wax sama diggante yàlla rek waaye maa ngi koy ñaan moom na dox maanaam yitte nit ñi na ci gën a farnoo ndax gis naa ñu bay dikkal nañ ko ndax génn bi naka wàññi moom tamit ndax yitte nit ñi na ci gën a farlu ndax loolu daa doon loo xam ne moo moo moo gën génn bi ci moom mën na di génn kenn ayu ko ko ndax lu mu war a def la waaye nay wàññi génn bi te yitte nit ñi mu gën ci farlu loolu nag moom damaa bëgg mu dégg ko ndax li may wax man dama cee ñëwee te li may wax maanaam nekkul loo xam dama koy dama koy dama koy nangam nangam damay damay wax loo xam ne ngir ginnaaw ñun ñoo bokk métier mi. ñu doon ay sëñ lépp loo xam ne gis nañ ko dañ koy wax li ma bëgg mooy maanaam bi génn bi dama kaa sañee ñaan bu ko mënee wàññi moo gën te yitte nit ñi tamit mu gën ci farlu ndax gis naa ñu bëri dañ koy dikkal te loolu xam naa ci dara ndax ñu bëri ñu ma koy wax kon nag loolu njariñam la moom ndax la ca def nag mooy dama la koy wax waxtu nekk mooy jëmmi xaal bii wallaay na xaasim laa lay giñal daa toll foo xam ne jamono ji ñu toll na nit ñi jug seen bopp ngir kaaraange ndax jamono daa toll foo xam ne képp ku jug sa bopp bisam ñëw ci bisi dana met ci yow loolu nag mbirum baatin la du mbirum saahir du lépp lañ mën a wax ndax jamono joo ko laaj ndax jamono ji weeru mu xaram lañ nekk te weer woo xam ne ci lay suñu borom tànn ñi war fekke dé am ñu ko wurtu fekke daa doon jamono joo xam la donte bis yëpp bisib sabablu la ak weer moom bis yooyu sabab weer bi da cee waaye sëñ bi ci jamono jooju nañ jàpp Ousmane Sonko ndax bés bi ñu ko jàpp vendredi nee nga ma du hasard nee nga ma heure bi ñu ko jàpp nee nga ma loolu lépp du hasard ay calcul la sëñ bi loolu lu mën a def ci Ousmane Sonko. a xam ne état moom lépp lu mu def rek amul tax ñu ko. Euh, li ma ko mën a xam ne tam sañ kàllare mooy man gën a muñ ñëw ak ci fii. na gën a na gën a muñ te li weesu mu ëpp li des. Mm-hmm. waaw kon nag bu mu yokk bu mu tiit bu mu ragal te garab gi foofu garab gi muy muy dégg na moom lay def mu mu ci dugg ndax bu ko defee dana sa bopp sonal boppam sonal ak njabootam te loolu amatul njariñ mm-hmm. li ma bëgg mooy mu muñ xam ne natt la te jàpp na natt bi ci bii lay jeexee te bu jeexee jàpp na ba àddina ki loolu dootu ko gaaraat mm-hmm. léegi nag li ma koy li ma ñaan mooy na jéem a maanaam muñ te xam ne kat moom ci boppam mm-hmm. yàlla moo ko te natt bii te bu ko muñee dana ci génn ndax yàgg na am natt yu na na yàgg na am natt yu gën a rëy yi te génn na ci li nga xam ne tamit sañ naa mooy bis bu ñu ko jàpp maanaam bis bu bis kii la bu waaw ajjuma ci waxtu tisbaar loolu leneen la ak tamit bi ñu tawaxee ba suba ga loolu leneen la am na loo xam ne di ko tudd di ko leeral ndax jot gi moo du ko maye waaye nag gars yi li ñu def ñoom xam nañ ko waaye nag ginnaaw jàpp nañ ko moom dem na na fexee nag moom li yëf yi moom gars yi solution solution bi dëgg-dëgg mooy mu muñ xam ne li li weesu mu ëpp mu li mu ëpp li des mm-hmm. kon nag loolu bu ci xalaatee rek war na mën a gën a góorgóorlu mm-hmm. te ñi nga xam ne ñoo ko jege tamit ñu koy encouragé ko di gën a yokk yokkum xelam di ko gën a kii ngir xelam di gën a dal ngir tamit mu gën a teg xam fi te tànk bu baax baax ndax dafa mel ni Ousmane Sonko boo xoolee dañ naan dafa ragal kaso njaboo it dañ koo ragal de mel na ni sax soxnaam ndeysaan bi ñu ko jàppee image bu trist mu génn di yuuxu doon sax dañ naan xamee wuñu ko loolu ndax dal lañ ko xamee ak yaru mel na ni jëlee na leen kaw def na dañ naan Ousmane Sonko prison beek yooyu noonu daf koy tojal ci mystique tojtal bu yéeme. waaw koso moom euh, damay faral di wax ni maanaam nit nit ko ragal. ndax yàlla moo ñu ko boo ñaanee ndax ko sama jub taxu ci bañ a dugg mm-hmm. maanu tamit taxu ci bañ a jubadi taxu ci bañ a dugg maanaam ndimbal yàlla rek moo tax nga mën ci dugg yàlla yàlla doole ndimbal ñun ñëpp waaye nag li ma leen mën a xamal daal mooy jëmi Ousmane Sonko tama la ko wax mu leer mooy na muñ def lu muñ rek mi ngi tàddi boppam ndax li ma wax la ko mooy damaa jàpp ne li weesu ak fi mu jaar ak natt yi nga teg mu mm-hmm. muñ ko ak si fii mu léegi des ci boobu bu muñ ma xam ne góor wudde nag muñ yàlla tax bu ñëwee suñu boobu dimbali ko. sëñ bi arrestation yi dafa tàmbaliwaat Pape Alé Niang jot na convocation am Ngagne Demba jot nañ que ni procureur mi ngi sàkku ngir ñu jàpp ji ko Ngagne ba Touré ñeneen ak ñeneen suñ bi arestation yi dafa mel ni bu ñu nee ñiix Sonko ñeneen ñi ngi leen di waajal jàpp. waaw xam nga jamono ji waxtu bu nekk rek maanaam dafa toll day toll foo xam ne bu xasee daf dara rek ci suma Sonko pour ñu jël ci dara yomb ndax daanaka mooy patron bi mm-hmm. nga boo gars yi moom bu jël bu jël seen patron moom ñi si dem pour nga jël day yomb waaye lu ci ma lu ci lu ci ma doon daal mun moom loolu du ma ci nangoo sori waaye daal lépp loo xam daal nit daal yaa ngi koy def ak lu mën a doon muy lu baax muy lu bon na rafet rek ndax bis ngi ñëw ci bisi loo mën a def da nga ko réccu bu fekkee lu baax la soo xool dana seet bu fekkee lu bon kon nag li may ñaan ñi xam ne sañ nañ maa dégg te xam ne bu ñu ma déggee sañ nañ maa may nañ jël lépp teg ko ci suuf te fàtte lépp dañ ñaan jàmm sëñ bi gone yi teguñ ci suuf de ndax gone yi dañuy yëngal lëndi ndax euh, manifestation yeeg yooyu noonu ragal nañ mu tàmbaliwaat na ñi koy def dañ bàyyi loolu teg ko suuf ndax loolu suñu solo maanaam yàq alali jàmburu nangam yooyu jëru ko ci yàlla dëgg la gis nga yëf yi méttiwul de bu ma sañoon ñoom nañ bàyyi lépp te ku suuf te doon jàpp seen liggéey te toog yor seen ko si ñaan gis nga ñaan lu mënu amul wallahi am loo xam sax bu ko yàlla bëggoon a mayee sax nga nga xëccoo doole sax suñu bo dalay far bàyyal loola te coono doo nga ci indi te li ci leeral mooy ñi nga xam ne ñi ngi may dégg te seen njaboot njaboot di génn naan dañuy xeexi nañ jug seen bopp ngir fagurle am na ci te dañuy dem ba ci ay ay gaañu-gaañu kaaraange rek te boo ko amee bu àdduna bépp duggoon ci biir xeex bi am ci yow da nga am kaaraange jàmbur nga am mhm. kon nag li may digal képp koo xam yaa dégg képp koo xam ne yow sax defoo dara waaye fexeel nga ñàkk sa njaboot mhm. ndax kullukum raahin wa kullukum mas'uulun an raahiyatihi ndax dafa doon loo xam ne njaboot gi ëllëg sàmmatu suñu boobu da la koy laaj daa doon loo xamante maanaam ni nga sàmmee sa bopp noonu nga sàmmee sa njaboot ndax loolu suñu borom suñu borom la ko dégg te dafa am loo xamante bi li may digal ñi nga xam ne ñi may dégg daal képp koo sa bopp sàmm sa njaboot ndax liñ li ma dégg nii de yaakaar naa gone yi ma gis liñ jàpp ni nuruñu waa ñoo ngi ñaan lépp tënk ci ak jàmm rek ndax ñu dul jàmm rek ñun duñ ci dox man da jàmm laay woote te képp ku ma dégg tamit bëgg naa nga fekk si moom te képp ko soppe nga te yaa ngi may dégg bëgg naa nga fekk si ci jàmm joojee incha allah ah, dama naan ñi mu njaboote boo dikkee ci barabam bi dikk ci këram gi sa yaram dafay daw ndax gis ndongo yi yar gi nga xamante ni yar na leen ko jàngal gi nga xamante ni mi ngi leen koy jàngal jaaraama lañ koy wax gàcce ngalaama ndax ku jaar ci ay loxoom ba mu teg la formation bi nga xamante ni teg nañ ko ko ay kilifaam teg nañ ko ko yar gi nga xamante ay kilifaam yar nañ ko xam-xam bi ñu def ci moom mi ngi koy def ci xale yi ndax mi ngi liggéey te mi ngi jàppale bu baax a baax a baax a baax diine ji ngir mu jëm ca kanam ma ngi cay bay waaram moom Serigne Jamil mi nga xam moo nekkoon suñu ganu tey gi mu ngi leen ñu ngi leen di jox dig daje ëllëg ci seen benn émission jërë ngeen jëf